on your ah waaw aji moom téema woon eh, a yem ca fen yooyu rek eh, waaye buñ ko ci dolli lee dara yow mu leen ne bay MC ma ngay dem te buy dem day yóbbu dara nga wëlbati ku dolle laat ko bagage yi yóbbu aji mii de ay cadre maam des na de ay cadre maam des na de yow nit di dem di yóbbu ji la nga waxoon nga wëlbati ku naan ko sarax ma ngir yàlla bul waxaat bul yóbbu audio bi dimbale ma ngir yàlla par yàlla dogal loole dimbale ma ak mu yóbbu mu yóbbaale waat ko waaye bay MC mii daal wax dëgg yàlla doon na bàyyi ñas macha allah am réew nar tak tàkk ci fen da ngay taxaw dëggal sa bopp li jënti ko mu jeex tàkk lii la am réew genn gone gu jigéen gu mën a fen goo xam ne si fu ne wandar wandar a def dëgg taal mi di rey ay nit di yàq liggéey lu ne mu di def lii bàyyi mbay MC def lii mam am lii de wax bayam yàlla bayam bàyyi Bayam bàyyi ñes gër sant na ko bayam sant na ko de wax dëgg yàlla sant na ko ndax de wax dëgg yàlla waxuma la sax bu dee tuddoo bàyyi ñes ba pare taal réew mi moom dañ ko war a fay kon nag bàyyi mbay MC lii mu def wax dëgg yàlla su wee na rôlu bàyyi ñëf de ginnaaw moom nee na ci njabootam la bokk ba pare moo tax moo dikk taal réew mi rey rey ay nit damm ay nit yàq liggéey nit def lu ne wëlbati ko di woo bàyyi mbay am si naan ko dimbale ma bul bul bul euh, bi pré euh, kii juge bi par bàyyi mbay am si enregistré waat ay bàyyi mbay m si yàlla na ko yàgg te wér yaa ñëw ak dëgg mënoon nga ci am xaalis bu bëri dina waa kër ndafa waa kër ndafa loo laaj ci xaalis ci liy gàllankoor ci liy gàllankoor Sonko jox la ko